mun xalaat ni nit dina am sañ-sañ boobu ndax li waroon alal googu may fàttali sénégalais yi ni dañ ñoo waxoon ni dafa am ab noon gu song réew mi noon gu bari doole noon gu soxora soxor noon gu ñàkk yërmande noon gu am doole am kattan ci wàññi nit ci jëmmam waaye noon gu am doole ci faat bakkan taamu ci yërmande ñun ñëpp ñu àndandoo ni loolu nag dafa jaar ñu mànkoo taxaw jàkkaarlook noonu googu looloo tax lu ñu lu nga xam ne duñ ko nangu lu dul ci cas yoo xam ne kaayu yu exceptionnel la loolu nangu loon président de la république mooy benn askan wi yëpp nangul ko ñu jël lu mat junni ci ay milliards wax benn milliard wax ma juróom milliard ma téeméeri milliards waaye junni ci ay milliards ñu teg ko ci loxoom mille milliards nangulaat ko ne ko yooyu du jaar sax ci procédure yi ñuy tàmm mooy dafa war a nga war a préparer yónnee ko assemblée commission daje après ñu yóbbu ko plénière ñu wote ñu ne loolu yëpp dafa yéex kon nañ ko def ci anam goo xam ne moom day jël ay ordonnance rek ne yi milliards yi milliards nangami milliards dugal naa ko fii nangam milliards dugal naa ko fii nangam milliards dugal naa ko fële loolu nga xam ne bu réew nekkee ci guerre rek lañ koy nangul euh, président de la république bii ñu nangul ko ko lañ lañu ñu diggoon Sénégal mooy mooy junni milliards yooyu ñeenti jubluwaay lañ ci jublu bu ci njëkk mooy nañu fexe ba système santé bi ñun ñëpp xam nañ ni suñu système santé dafa sooxe poste de santé yi doyul hôpitaux yi doyul paj mi sooxe na nit ñaa ngi dee ci couloir hôpitaux yi nit ñi sonn nañu ñu ne kon nañu fexe ba comme lii yee nañu te àdduna jaxasoo na mille milliards yi dañu fexe ba ñu ci jógee suñu système santé gën a taxaw ñaar bi nga xam ne moom la ñu waxoon mu lu ñu tuddee résilience sociale mooy comme feebar bi am na te Sénégal dafa bëri néew du doo ñuy fàttali ni ci ñaar fukk ak juróomi réew yi gën a ndóol ci àdduna ci lañ ñu boole kon dina bëri ñoo xam ne seen mën-mën comme mënatuñu liggéey ni ñu daan liggéey lañu daan fortaatu di dundantu sax mënatuñu ko am ñu ne kon ñooñu dañ leen ci jàppale muy résilience sociale ñetteel bi mooy stabilité macroéconomique fexe ba koom-koomu réew mi du nërmeelu ñeenteel bi mooy li ñuy tuddee fexe ba li nga xam ne mënul ñàkk cim réew muy hydrocarbure lépp lu jëm ci pétrole ak gaz wala muy ci garab gu ñuy fajoo wala muy ñu gën a soxla ci li ñuy dundee mu bañ a am rupture mu fexe ba du ñu ne loolu manqué na ci réew mi looloo taxoon sénégalais yépp man ak yow may seetaan ak keneen ak keneen ñu nangul Macky Sall jox ko lu toll ni mille milliards lu bokkul ak budget Sénégal waaye yemuñu ci loolu ñu jox ko sañ-sañ ndax mille milliards yi naka la naka la naka lañ koo amee mille milliards yi téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk ak ñeent yi quatre vingt pour cent partenaire technique et financier lañ ko dem utee ji mooy dañ koo leb mooy man ak yow ak suñu doom ak suñu sët da koy fay lu ñu leb la dañ koy fay di ko fay fii ak ay ati at dañ koy fay ci turu Sénégal la ko lebe ci turu citoyen sénégalais yi ñu ne am na ci téeméer boo jël fukk ak ñett treize pour cent yoo xam ne sénégalais yi ñooy góorlu génne ko seen poos mooy impôt gi ñuy fay moo dem ci budget bi kon boo boolee boobu ak bor bi yëpp day dellusi ci citoyen bi ñun ñoo koy fay bii da koy fay tout de suite bii dañ la ko lebal nga koy fay ci ay année mu ànd ak intérêt ñu ne ñetteelu pàcc bi muy deux virgule cinq pour cent téeméer boo jël ñaar ak genn wàll gi ñu ne citoyen sénégalais yi ñi nga xam ne ay bonne volonté la ñooy yëkkati seen alal ne mii jox naa sama contribution gis nañ fi ay kilifa diine yu joxe xaalis bu dul jeex ay dizaine de million gis nañ fi ay chef d'entreprise yu jël xaalis bu dul jeex joxe yërmande bi ñu am ci réew mi ak ci askan bi moo taxoon waa mbokk yi est-ce que jaadu na tey ñu ne xaalis boobu gaa yi dañ koo randal randal ko ci ñeenti anamit ndax Cour de comptes dafa ne non respect des mooy ni ñu ne xaalis foofu la war a jaar pour génn respecté wuñu ko gis nañ fi sax ñoo xam ne dañoo jël xaalis bi dem dugal ko ci benn compte am seen nit boo xam ne semaine bu ne mu dem retirer cent millions lu jaarul ci chèque lu jaarul ci décaissement état loolu lu garaaw garaaw la ñaareel bi nga xam ne am na mooy lu ñuy wax surfacturation waaye yow jamono bu nit ñi feebar bay sukuraat ñaata nit a ñàkk seen bakkan ci mbir mi yow nga ne lii il faut ma lekk ci xaalis gan bu doon jar cent nga ne dinaa ko jëndee deux cent pikiir bu doon jar cent nga ne ko jëndee trois cent kilo ceeb bu doon jar euh, cent nga ne dinaa ko jëndee cent quinze waa ana yërmande nit de am na loo xam ne boo ko defee ci jamono du dara amul sax lu garaaw a garaaw la waxuma la nag jamono bu ñu ne dañoo nekk ci guerre ay nit di sukkuraat ay nit seen liggéey yàqusi yow nga am sañ-sañu ne tey laa ci profité pour am samay milliards man ñetteel bi mooy exécution de dépense sans rapport avec Covid mooy am na loo xam ne def nañ ko ci amul benn rapport ak Covid 19 ñeenteel bi mooy défaut de pièces justificatives nee nga dépensé nga nangam million wala nangam milliard ñu ne la andil li koy firndeel ci ay facture rek nangam nag nga ne amoo facture amoo lenn lu ko mën a firndeel lii lu garaaw la ci réew mi te nag dafa mel ni bàyyiwul benn ministère parce que boo xoolee rapport Cour des comptes bi neuf ministère la concerné te ministère yi nga xam ne ñoom la ñu yaakaaroon ni ñoom war a nekk ci ci ci ci ci kanam ci xeex bi ñuy xeex mbas bi parce que ministère de la santé de l'action sociale mi ngi ci moom mii nga xam ne moo yor santé ak action sociale ak hygiène publique moom mi nga xam ne moo war a fexe ba hôpitaux yu dox médecins yi nga xam ne lu ne daj nañ ko ci jamono jooju te amuñu blouse amuñu masque amuñu gant ñenn ci ñoom sax mujj jël feebar bi ñenn ci ñoom seen bakkan rot ci ministère bi waroon toppatoo loolu ñu ne bokk na ci ministère de la fonction publique bokk na ci ministère de l'urbanisme et de l'habitat bokk na ci ministère du commerce euh, de la petite et moyenne entreprise bokk na ci ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yor ñoo gën a néewle ci comp ci ci euh, euh, acteur privé yi moo xam ambulant la moo xam borom cantine ak yooyu ministère boobu waroon dajale loolu bokk na ci ministère de la des mines et de la géologie bokk na ci ministère du développement communautaire et équité territoriale bokk na ci ministère des sports bokk na ci ministère du développement industriel et la des petites et moyennes entreprises industrie nga xam ne moom it moo waroon fexe ba yenn entreprise yu ndaw ndawaan yi industrie du ñu daanu bokk na ci kon lii boo ko génnee ci gouvernement bi lan moo ci des lii nag li muy firndeel mooy responsabilité benn nit la benn jëmm muy président Macky Sall lii du guleet Sénégal de mbokk yi xanaa kay li mu tombel muy jaarale jaare ci xeex feebar boo xam ne jaaxaloon na ñëpp ba kenn ku ne am lu mu bàyyi ci boppam ba ñun ñi nga xam ne ku jéggi lañu nekk te ñëpp xam nañ ni ànduñoo ak président Macky te kenn xalaatuloon ni dinañu dem pale toog ak président Macky Sall wax ak moom waaye bi ñu jéggi seen yi lii dafa laaj ñun ñëpp ñu am nu ñu jëlale daal di jiital intérêt réew mi dañoo bàyyi suñu lépp dem palais waaye maa ngi leen di fàttali ni bi ma génnee ci pale wéetoon naa trop ci ñi taxawoon ci pale bi daa di wax ni alal gii nañu fexe ba mu mel ni alal gañu daan toppatoo ci réew mi ay détournement ay surfacturation ay dépenses yu bokkul ak lañ ko liñ liñ ci jubluwoon ak ay dépenses yoo xam ne buñ la laajee ana justification doo ko mën a andi ñun dañ cee teel a àddu de ndax magu waxoon nañ ko lañ duñu magu xamoon nañ ko moo tax ñu teel cee àddu mu am ñu ne woon sax ah moom de fu mu dem rek wane fa ay politique yooyu waaye lii lañu gisoon tey histoire jox nañu dëgg ba tax nag ñuy wax lii du gulet ci senegal Cour des comptes yàgg naa déposé rapport nag keroog bi président OFNAC bi di génn nee na am na lu mat 40 rapport yoo xam ne mi ngi ci table procureur procureur teg ci tànkam yàgg na di déposer rapport CENTIF yàgg na déposer rapport inspection générale d'État yàgg na déposer rapport waaye moom Macky Sall moo ciy teg tànkam li gën a garaaw mooy nit bu luubal ba ñu jàpp ko gis nañ fi nit bu luubal ba ñu jàpp ko nag def rapport ne mu ngi demander procureur mu ubbi enquête judiciaire pour escroquerie à station de malfaiteur ci lu mat 94 milliards yoo xam ne ñu ngi ko fi doon coow Macky dëgg ci tànkam ba pare jël ñooñu fal leen kon lii Sénégal dama bëgg ñu xam ni lii Macky Sall mooy parrain bi moom mooy encourager nit ñi ne leen jox naa leen responsabilité jël leen pour mun a dem politiquel ma pour mun a dem jënd sénégalais ñu woteel ma lu leen ci fekk dinaa ko gérer moo tax kuñ ci jàppit du mujj fen trafic bi am na fi faux bi am na fi jaay drogue am na fi léegi lii ñëw ñooñu ñëpp tey non seulement dara da fekku leen ci waaye ñi ngi dox seen dox tranquillement li gën a garaaw mooy dañ leen di jox ay ay poste dañ leen di jox promotion kon benn responsable moo am ci lii mooy Macky Sall te li ñu yàgg a def mooy nëpp nëppal affaire yi ci loolu la ñu nekk de dégg ngeen keroog ministre des finances ne na ngeen ko wóolu ndax dinañ jël rapport bi jox ko chancelier muy ministre de la justice moom mu yëg ko yët ko procureur ñaata rapport la ñu jox chancelier ñun recensé nañ lu mat cinquante scandale yoo xam ne am na fi diggante bi Macky Sall di toog ak léegi ñu ngi ko bloqué diggante ministre la justice ak procureur kon dañuy fexe ba suulaat nëpp nëppal mbir mi wala ñu fexe ba jël ay nit yoo xam ne ñoom second couteau lañu mooy dañ leen di def loolu ñu def mooy daaj yi ak comptable yi waaye fexe ba ministre yi nga xam ne ñoom ñooy ndeyu mbil gi ñu teg ñu fexe ba écarter leen ci responsabilité mbir mi loolu yàgg na fi te xam nañ ko ñuy wax nag waa senegal nun de dañoo bëgg ñu wane ni bëgg nañ suñu bopp parce que bu bu leen leeree ni këpp alal gi nekk ci réew mi buñ ko xayma woon yëpp ay milliers de milliards la loolu rek mënoon na régler xëyu ndaw gi loolu rek mënoon na régle paj mi loolu rek mënoon na régler mbayu ndëkk bi loolu rek mënoon na régler tali yi ndox mi courant bi loolu rek mënoon na régler lépp loo xam ne ñu ngi koy jooytu fii la ñuy këpp mu waroon dem ci lii ñu jaarale ko feneen ay nit yor ci ay milliards ci seen xaalis ci ay banque fële ci réew tugal yi tabax seeni immeuble biir Sénégal ci alal goo xam ne alalu mbo mbooloo la buñ ko regle woon rek tey kenn dootul toog di jooytu yenn yi waaye askan wi moo mën a réglé loolu boppam moo tax ñu wax ni askan gi la gën a saytu alalam moo la ëpp développement mbokk yi tubaab yi dañoo ñu raw fuuf ci bépp fànn nag su dee ci mbirum àdduna waaye gis ngeen ni barki démb rek kenn ci député européen yi dafa dem Qatar ñu may ko fa xaalis gu dul jeex du xaalisu Europe de du xaalisu réewam du xaalisu continent am dafa dem feneen ñoo ñu may ko xaalis waaye tey biñ ko découvrir ma nga ca kaso ba moom ak ñi mu àndaloon yépp ku la gën a euh, euh, farlu ci saytu alalu réewam ku la gën a fartu farlu ci bañ lenn ci sénégalais yi rek nga xam ne matuñu sax zéro virgule zéro zéro pour cent ak kii moo alal réew mi kooku moo la gën a développé parce que alal googu buñ ko saytoo ni ñu ko war a saytoo mooy dem fi mu war a dem c'est-à-dire ci askan bi moo tax dafa jot nag bii waruñu koo bàyyi mu romb bii suñ ko seetaanee nañu xam ni lu ko neex na def ci réew mi bu fi kenn jooytootu loolu moo tax ñun ñu woote du mbirum politique du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Yewwi Askan Wi du mbirum société civile bi waaye mbirum sénégalais yi la comme nag yàlla daf ñoo nattu ñu jiitu am lu ñu woote suñu digganteeg sénégalais yi gëm loolu it ndax xeex yorin gu ñaaw gi ñuy yor réew mi ñëpp dañ ñu cee ràññee bi ñu duggee ci politique ba léegi loolu lañu gën a ràññee moo xam ci communication moo xam ci assemblée nationale moo xam ci lépp li ñuy def xeex nañ ci pétrole bi bind nañ ci ay livres xeex nañ ci détournement xaalis bi xeex nañ ci li ñuy def ci suuf si kon ñun lii du guléet waaye dañuy jàpp ni mbirum askan wi yëpp la nag moo tax suñu wootee woote wu ngir ñun dañoo woote pour askan wi. nañu fexe bu bii bu mu romb moo tax ñu woote am programme bu ñu tëral programme ba ba ca jiitu mooy le